salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki ami internet Tacko TV la lumière du cœur leeru xol yi ginnaaw bi ñu ñaanalee sëñ mu Mbacké xalifatul am mu yàgg fi loolu te noonu lañ koy ñaanalee sëriñ Amdi Modou Mende Fall mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal sëñ Bachirou Anta Niang xalifa Daarul Moxti mu yàgg fi lool te di dugg ëttu këru diina yëpp di fa ñaanal ña fa nekkal lislaam ñu yàgg fi loolu te tey nag bu ngeen gisee lii ñu ñëw tey ci seen édition bi nga xamante ne si mën nañ ko duppee tamxarit tey ñu ñëw ci jouru tamxarit bi seet si sunu yaay sunu bàjjan mboose nga xam ne ñoo bokk dëkk fii ci géejawaay muy sunu bàjjan ñu estimé ko bëggu ko lool te sëñ Fallou Mbacké tax tey moom nañ seet fii fas yéene waxtaan ak moom ci tamxarit fas yéene waxtaan ak moom ci reeru tamxarit yi fas yéene waxtaan ak moom ci ñi nga xamante ni si noonu la sunu jabar yi war a duggee ci waañ bi ci ñi nga xamante ne si noonu lañu ñu war a joxe worma cere bi ñu gën a taamu ci tamxarit mu mel ne dañuy bàyyi bàjjan mboose comme ni ko nit ñi di waxee rek mu présenté wu nuyoog waa ami internet Tacko TV kon bàjjan ñu ngi lay ziar di la bàyyi nga nuyoog waa Tacko TV. macha allah salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum tubaarkàlla macha allah waa Tacko TV maa ngi leen di leen jaajëfal baax a baax ah, di sant kenn ku ci nekk sa trop sant waaye ñi ngi sant yàlla bu baax a baax. di sant Serigne Bamba bu wér a wér. Mm-hmm. di wax jërëjëf Serigne Bamba jërëjëf Serigne Bamba. Mm-hmm. waaye di sant yàlla ndax euh, moo ñu boole ci njabootu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur baax a baax di sant sama yaay yàlla na fi yàlla bàyyi ci barke Seyduna Muhammad sama waajur góor bi nga xamante ni dëddu na yàlla na ko yàlla xare ci àjjana koy moo fa fekk fa fekk di nuyu ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér Mbàkke Balla Isa di ziar àdduna bépp kilifa diine yëpp nag bàyyiwuñu fenn macha allah fépp waay nekk rek tey kilifa diine ñi fay fekk di lay jox sa wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm di wax suñu réew mi yàlla na fi jàmm rek di am yàlla yàlla dolli la ziar. amiin macha allah sunu yaay sunu bàjjen Mboose moom it ñu ngi koy ziar mu mel ne noonu lu nuyoo waa ami internet Tacko TV. Mhm. mais comme ni ñu waxee rek du ñu développé lu bari parce que dañ koo fekk ci koor te amaana dog li des mu des mu jot bariwul. dañuy waxtaan ci moom ci kàddu yu gàtt te neex rek mu baaxee ñu ko mu mel ne bàjjan bu ñëwee dugg ci waxtaan bi. Mhm. tey bu ñëwee ci tamxarit maanaam ñu gis ni tamxarit. dañ ciy taamu cere ñu gis ni tamxarit. maanaam yu bëri da ciy xew mais fi ñu bëgg ñu développé ci carrément suñu diggante ak yow. Mhm. muy ci ci ci cere tam cere tam maanaam dañuy gis jigéen ñi dañ koo jox ak ak yelleef tey cere tam xarit ki nga xamante ni si moo koy waajal naka la ko war a waajalee. waaw sëñ Fallou di santaat yàlla baax a baax ndax nag tubaarkàlla dañ fay fekk loo xam ne sunu maam yi ñoo ñu ko fi bàyyil fekk fi loo xamante ne tubaarkàlla moo ñu mag tam xarit ku ne xam na ni eh, fi mu ne yaa ngi fekk ma nekk ci koor ndax ñun dañoo bokk ci njabootu Seydina Mouhamed te bis bi doon na bis boo xamante ni du mbégte ci ñun ndax li tax loolu mooy xare badar ba ku ne xam na ko macha allah te ñun dañoo bokk ci xeetu Seyduna Muhammad mhm. ba tax na nag maa fekk ma ne ci koor nii nag waaye day mhm. bokk loo xamante ni mhm. ci la bokk ci la bokk waaye cere tam xarit sunu yi sunu maam yi dañu cee tàmmal loo xam ne tubaarkalla ba léegi ci loolu la ñu dox muy eh, boo déggee ñu naan tam xarit nag bu njëkk ba ak bu léegi bokkatul ndax bu njëkk danga naan jëlal sa bopp sebet dugub sebetal sa bopp dem wàllu ji ñëw tubaar tubaarkàlla te yaa koy soqal sa bopp nag ci gën gi mais léegi soq amatul ndax machine ya tax waaw xale yi nangoo tuddee soq soq amatul ñu suñu jamono soq am mais dëgg dëgg dëgg tam xarit da nga hmm. naan toog sax ba pare yow yàq tëla ndax da ngay sonn ndax li ci war coono yi ñu ciy def ndax coono gi dëbb ga dem lay ba yóbbu walu ji hmm. ñëw mooñal sa bopp tayal sa bopp hmm. waaye léegi tubaarkàlla yëf yi dafa gën a yomb dafa gën a yomb machine yaa ngi fi ba pare tam jaaykatu am na ñoo xam ne jaaykatu cere lay dem jënd fa cere waaw bàjjan man loolu jaaxal na ma tamit damay gis ni ñoo xamante ni si ah. maanaam dañuy yor kër xaw ma doole gi moo ko dul mate xaw ma tayal lay doon dañuy gis ñuy dem ci jaaykati cere di togg di jënd cere te ñeex rek la ñuy togg bu ñëwee kii ko dina am càkk bi mu war am na ñoo xam nag tayal la waaw am na ñoo xam ne du néew du ñàkk du ñàkk néew doole waaw comme ñàkk bu loo tey déedéet parce que yàlla suñu borom am na lu mu def loo xam ne tamxarit lu hmm. waay lu waay ñàkk-ñàkk bi su tamxarit sa léppay baax Ah, waaw ngëneel la suñu borom da ciy teg mais yenn jeeg ji mhm. tàyyal la ndax li la may nga dem jënd sa ndawal mhm. wala nga jënd sa ginaar ñëw roof def sa ñeex mu far loolu war na laa man a may nga toog jël sa temps tay sa cere ba mu ba mu suus nga jël sa laalo laalo ba mu baax nga delloo muri tax nga def def say yu baax baax yi nga xam ne tubaab bu sa borom nga toogee reer dina xam ne lii sama soxlaa ko togg macha allah mais tay bu nekkee lépp dafa nekk loo xam da ngay daw jënd ko daw jënd ko dootoo amati sens jéeg dëgg jéeg dëgg bi su tamxat da nga ko war a fekk ci waañam Ah. coolo yi cereel gi jàpp ko ñaq wi jàpp ko mu xam ne tubaarkàlla coolal da koy ñàkk la koy da koy téye mu leer na lii ngay togg sama loxo bi ko togg macha allah tubaarkàlla ku ko tamit bu lekkee dina xam ne man kat tey loxo jeeg bi laa mu mel ne loolu loolu loolu maanaam mooy cafka cere bi mooy guuba mooy guuba ndax xam nga ngay xam ca taal ba saxaar sa dina oh, jàpp wala bu dee këriñ la ngay uppaat doomu taal ñëw topp la yooyu yëpp day nekk coono joo xam ne tubaarkàlla mbégte lay doon ndax lool sunu maam yi daan dal mais léegi gaz tax na kenn xamatul kenn xamatul këriñ gi tamit waxi nopp lépp nag sant yàlla la léegi boo ah. xoolee dañuy xool léegi génération léegi mhm. sunu ñoom yaay dañ daan ñëw toog araw mais léegi génération léegi mënuñu sax araw man loolu daf ma jaaxal bàjjan araw yi sax léegi nag dañ koy jaasal ci biti gi léegi araw dañ koy jaay lépp lépp lépp ci sase yi lépp looloo daan dem di ko arawal sa bopp léegi da nga dem ci biti dem fekk fu ñu koy jaay sa sa téeméer sa sa mille francs nga dem jënd ko mais am na fu mu baaxee nag parce que bu fekkee ku jigéen day liggéey jëkkër day liggéey jabar liggéey mm. xale yi amuñu jot yéen ñëpp kenn kër ga balaa fa kenn nekk cinq heures wala six heures mm-hmm. kooku bu fekkee ne yoroo kër goo xam ne kër gu ngéwél man mm-hmm. ngaa daw jënd sa mbuusu sànqal wala nga jënd sa mbuusu araw ñëw araw def sa laax mais est loolu mënul mujj est munoo xool benn bàjjan mboose bu nekk ci koñ bi mm-hmm. nga dem yóbbu mu arawal la waaw am na ñoo xam ne ay am na ay bàjjan mboose yu bari nag yu ne ci koñ bi ñoo xam da ngay dem ñu arawal la bu la arawalee loxo dafa saf bu bees bokkul ak bokkul ak boo araw bu bees dara da ko dàqul araw bees boo ko fondee am lu bari boo ko laaxee am lu bari ndax day ñor ca ndox man ñor ca ndayam wuyul ma loolu kon mais araw bi nga xam ne dañ ko araw <laughs> mu am ay fan ñu def ko ci mbuus ñu def ko ci sachet waaw mu wow ñaq woowaat ñaq woowaat kooku bala ngaa bala nga koo ñoral lu rëy nga lu rëy nga daj coono bokk ak sungu bees bi nga xam ne da nga koo araw léegi laax ko léegi sunguf ko léegi tubaar tubaarkàlla tubaarkàlla. tubaarkàlla macha allah kon mu mel ne jeeg yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak jànq ji ñi nga xamante ne si munuñu araw tey araw boo ñu ko doon décortiquer bàjjan ñi nga xamante ne si ñu ngi lay seetaan bëgg a xam ni ñuy arawee te jànguñu ko tey lan nga leen di jàngal ci araw. waaw araw nag moom tubaarkàlla bu yàlla dogalee nga soq sa dugub. Hmm. boo soq sa dugub boo wal ko ba pare. Hmm. boo walee da ngay wut sa leget. Hmm. boo jëlee sa leget. teg jël sa sunguf def ci. teg sa potum ndox boo tegee sa botu ndox sotti ci sunguf si. Mm-hmm. boole. jaxase jaawale muy jaawaloo di tooy waaye di tooy xepp nag ndax bu tooy xepp la nga bëgg du ko am muy jaawaloo di jaawal def ay def ay raw yu dijj dijj ngay toj di wis ndox di toj di boole di araw di wis ta ndox di toj boo bëggee araw laax araw laax bu dijj bu yemamaay mu defal la soo bëggee arawu fonde bu sew bu yemamaay mu defal la kon soo bëggee arawu cere itam bu tuuti bu doom ba sew tam mu defal la kon araw nekkul ni da ngay ñëw rek araw benn benn donj daa daa ay façon. da ngay première donj dafa am deuxième donj am troisième donj am. macha allah waaw tubaarkàlla loolu lépp nag tubaarkàlla la ndax boo arawee mu def première donj da nga koy toj. macha allah mu def deuxième dem mu nga tojaat sans départ ci doom bi ko soxla rek. macha allah kon ñu ñëw ci cere ji ndax cere yi bàyyi naa sama kër cere joo xamante ne si maanaam xemmeem naa ko te lekkaguma ko. Mhm. cere yi mu mel ne dañ ciy def ba def ci yoo xamante ne si balaa muy pare. Mhm. da ngay dem am amuru fekk cere ji. maanaam xéwloo ko. mu mel ne yooyu ñu ciy def dañ ciy def yu ci mel ne ay ay bëy rek. yu xeet yu doy waar yooyu ñëwul ñu ci. ba tey itam cere nit ñaa ngi togg cere ñu bari mais des na ñoo xam ne ni war mën a togg cere. Hmm. am na it ñu mën a togg cere. Hmm. mais togguñu cere dafa bari te boog ñii dañuy rosi. ñii dañuy diigal. Ah, mais bi ci daq bi ci daq mooy diigal bi diigal boo ko déggee mooy da ngay ñurug sa cin. raxas sa ndawal def ci. raxas sa abba def ci. raxas sa yel ba mu set def ci. jamb sa tamaate doom. def sa tamaate doom jamb ba mu baax nga sotti ci. yaa may dégg dindi sa tuuti loqati def ca. <laughs> loqati mooy tamaate ja laal sa xorom waaw laal sa xorom tuuti saf-safal def ca bàyyi mu mbaxano àndandoo moom. bu àndandoo moom di baax tubaarkàlla ba diwu ndawal ji génn diwu yeel ji génn. diw a bàjj gën ndax ku nag nag da ngaa woor de. diw damaa woor ah, damaa woor mais loolu tamit doo ko bàyyi xel tamit bàjjan nanu ko tasaare nii ah tubarkàlla bu diw tomate ci génn waaw ñoo ñëpp seen diw bu génnee da ngay da ngay ubbi da ngay day diw gi day ne ci kawam day tëmb nga xam ne xelli na mooy xelli mm-hmm. su ko defee nag tubarkàlla sa ñàmme ji nga xam day naqaree ñoral mën naa ànd ak ndawal ga karoot gi naqaree ñoral mën naa ànd ak ndawal ga nawe bi ñàkkaree ñoral mën naa ànd ak ndawal ja mais ñoom in nga xam boo dugalee mu sey mën nañoo jël seen temps pataas mën naa jël temps pombiteer mën naa jël temps loolu ndax ñoon mën nanoo ànd ak nokk ñoom pataas ñoom pombiteer ñoom dañuy xaar ñoom it pombar ñoom dañuy xaar ndax moo ko dugal bu tasee bu tasee li nga war a am ci cere ja apar doo ko am ay lay la laaw mais li koy faral mooy boo toogee ba xam ne tubaarkàlla macha allah ñoom ñëpp jaawaloo nanu mm-hmm. nga diigal yooyu ba nga xam ne waroon dugg nga def sa nokkos nag jëlal la desoon ca desit tamaate ja sotti ja bàyyi ko muy jàqar bi ko nga jël sa ñetti xobi laurier laurier mel na ñetti xobi laurier sànni ko ca mu ànd ak moom di jógaale ak moom nga dem nag jóg sa no dog jóg dog dog sa nokkoos kaani nga du bari tuuti kaani nga def def sa poobar poobar lu mu lu mu saf doyut ndax poobar mooy téye cere waaw ndax ndax boo koy lekk di sentir na yaa ngi koy lekk moo koy moo koy téye di def sa laaj def sa tuuti kaani tubaarkàlla tuuti tuutal jël sa soble lu toll liibaru soble wala kiloolu soble ndax soble bi lu mu bari bari mooy faral si ñeex bi soble si mooy faral ñeexum cere mi waaw nga nokkos ba mu fënt mu tubaarkàlla fekk na yooyu ca biir moom ñor nañ ba jaawaloo nga jël sotti ca biir jaawaloo yaa xam nag bion bu la neex <laughs> mbajan meno ma rey waaw ñor mooy nanu nanu farataal xorom xorom waaw xorom ndax ñu bëri bëri na ñoo xamante ni kii bi la ñuy bëri bi yooyu jël di ko toggee mais xorom si am na ci solo Mm. parce que xorom loo biyon biyon biyon bu xorom nekkul rek day am problème. parce xorom si moom mooy naturel bi. xorom tibbal sa loxo xaaj sotti ca boo pare lay no mottali mën naa mottali ko ca nokkos ba. mais mm. xorom na fekk xorom moom dugg na li mu war a dugg ba pare. mais est-ce que nga yaakaar cere itam xarit. Mm. ni ñu ko mën di waxee cere itam xarit est-ce que ci def ba def ci loo xamante ne si maanaam après boo ko lekkee mën na jural ki nga xamante ne si tey exemple dafa am estomac. wala leneen na ko indil leneen. waaw ak ñi jabet parce que mooy suukar si. Mm-hmm. ñii am na ñuy def tàndarma ñii am na ñuy def mais loolu lépp. tàndarma ci cere. waaw suukar bi dañ koy boole da ngay da togg ci diw gi. Mm-hmm. boo tegee ci diwur diw ñeexu cere bi. Mm-hmm. teg suukar euh, raisin. Mm-hmm. tàndarma. beurre ba. tubarkalla fromage ba. diw ñor ba nga boole loolu lépp kalla jaxase bëgg ko bomb ca cere ja cere ja day takku. ah il la mu mel ne bomb ci la ñuy ñëw. cere ja day takku xam nga lu tax cere day takku. day way. loolu lépp geres la bu wayee jàpp cere cere day takku mais boo ko defee bomb bu simple. Mhm. bomb boo xam da ngaa dindi ci niiw gi def ci. laal tuuti tubaarkàlla macha allah sax xorom boole ci laal ci ndax cere dafa war a am guutu ndax day lewet. waaw laal ci tubaarkàlla coppati cere seen def ci ana haricot haricot haricot blanc bi nga xam ne fi lañ ko fekk. mu mu ñor xom. nga bu ñoro day mel ni day mel ni pëndum nen tubaarkàlla nga bombaale ko ci mu simple boo koy bombaale jooju cere mën naa nekk ñetti fan du yàqu <laughs> yan mbaajan fi mu toll nii nag eh, maanaam réerogu ma waaye sama mu toll nii yaa ko yóbbu mën naa ne ñetti fan du yàqu <laughs> ndax du bari loxo lépp ci bomb bala lépp ca bomb bala bomb bu am na nuy bomb boo xam ne bu cere ji fanaan bu xëy rek day yàqu mais naka nga war a def ba cere ji bomb bomb ko fanaanee warul yàqu nii ma la wax rek noonu ngay def diw ga ngay dindi tuuti jël sa haricot blanc tuuti tubaarkalla macha allah laal tuuti xorom sànni ko ca tuuti rek tubaarkalla macha allah jaxase boole dana am guu dina neex ta du gaaw a forox. loolooy tax bu fanaanee warul ndax nag tey nit nañuy bombe luus nañu jël kuddu luus wala mbattu. ko bombee mbattu yi fi xewoon mbattu maam yi mi ngi fi. mbattu yu wala bakku yi mi ngi fi. Hmm. di ko bombe day tax sa cere du du gaaw a du forox. mais boo jëlee sa loxo bomb bu fanaanee bu bët satee boo moytuwul di nga am ëndër bu la du neex. am na ci ñeexit nag ñeex moo xam day fanaan fuur da ciy am ndax la ngay njatt ca ñeex ma la ngay njatt ca ñeex ma def ca ñeex ma moo dul am moom la ñeex ma dul attan day bari ñeexum cere bu naturel bu naturel mën na am ñetti fan ñeexum cere bu naturel mën naa am ñetti fan ñeexum cere bu naturel nag mu koy ndee mooy abba ja du bari mbaq ga du bari <laughs> yaay lay la laaw mbaq bu mbàq baree mbàq ga bu baree abba ga butit ga bu bare waaw butitu xaram la yaa xam nag su baree kooku su amee ñaari fan wala mu am benn fan mhm. mën naa indi xam nga ñu am na ñoo xam dañu seen cere ñeexu car day ba dañ ko frigo waaw yoo xam dañuy denc parce que bëgg ñëpp ñëw ñëwuñu il faut nga am loo laf ca côté ba denc effectivement mais bu fekkee def nga abbaaju bari biiru xar bu bari loolu bu bari mën naa fuul bu fekkee denc ko frigo day boo ko dencee frigo sax am na noo ko génn mootu day ritax parce que ne xam ne abba dafa ritax mais bu fekkee ndawal yàpp xar wala bu nag la ginaar mm-hmm. lu mu ci mën a doon la mën na laa dimbali ba tubarkalla bu ñeex ba ñettawut du mm-hmm. yàqu ay léeg-léeg laaw bu ñeex ba njattuwul du yàqu kon ni ngeen ko déggee maanaam bàjjan décortiqué na li nga xamante ne si mm-hmm. moom mooy cere naka lañ koy toggee cere naka lañ koy bombee cere ñeexu cere naka lañ koy def ba nga xamante ne si bu paasee du yàqu kon mu mel ne bàjjan fi mu tol ni moom maanaam min ci koor gi waaye xam naa ne daal ñu ngi tàqamdiku fi mu toll nii ñu ngi tàqamdiku ndax cere ji ni mu koy décortiquer macha allah ba léegi buñ ñëwee maanaam ci ci ci ci séddale yi ñu gis ni ñi nga xam ne dañuy yàkkalaate di yóbbulaate ci cere yi mu mel ne tey bàjjan mboosee togg war a yóbbul ki nga xamante ni si moom mooy gorom tey ñu gis ni jeeg yi ñu ngi koy def mais bu ñu koy def dañ koy jox ak xam da ngay gis ñoo xam ne dañuy mel ne kuy dem xew may ko bu mm-hmm. dem yóbbu yàq ji ñëwal ñu ci yooyu ci yàq yi waaw ndeysaan euh, jamono nag mm-hmm. li naan bis bu nekk ak war a xew mm-hmm. ndax tubaarkàlla sunu jamonoy maam ñoom. Mhm. Ah, daawuñu ko defee noona ñoom dañ daan toog fi ñu toog yàkkal seen dëkkandoo yakkal yoon mhm. yónnee ñu jël ma dem mais comme dañoo toll jamono joo xam ne tubaarkàlla jamonoy jongoma la. Mhm. jamonoy bëgg lu baax. jamonoy sañse. jamonoy goro boo xamante ni tubaarkàlla da nga koy dem fekk mu def lu baax yow tam da ngay def lu baax. dëgg la rawati tubaarkàlla yàlla may la borom kër gu baax boo xam ne yaayam dafa baax. kooku booy dem ci moom doo ko xeeb. dëgg la mais am na ci ñoo xam dañ ciy jublu pour wujje sa wujju lay fekki damay dem pour daanele ji ko waaw waaw damay dem fekk ci samay wuju pecc damay dem pour daanele leen ko pour defante am na ñoo xam loolu lañ ci jublu mhm. am ñoo xam dañ cee jublu ni ñun mhm. ne amul lu mu yóbboo man ma def ko lu ko triple de bi te loolu baaxul loolu baaxul nan ko naturelal ki nga xamante ni sanc la man mhm. na dem ci sanc bi mu dond na ko dem defi ko woon kenn taxa bañ mu jóg dem defi ji ko te yàlla tax ndax reer nag mën ngaa yóbbu sa reeru tam xarit sa doom yóbbu sa doom mën naa yóbbu dem jox ko li ci am solo mooy sa goro bi xam nañ yow bàyyi nga ko xel sa goro xam nañ yow mii sóoraale nga ko sa goro xam ne yow mii tubaarkàlla sama goro bi kat am na fu ma teg bàyyi na ma xel bàyyi na ma xel mais nga pare cinq heures wala nga pare quatre heures hmm. daw solu gaaw dem yaa ngi dem yóbbu reer pour ñi kër nga xam ña toog di togg reer ñoom talu ñoo sangu talu ñoo yaa ngi dem pour wàcce leen pour ñu leen day doon loo xamante ni di nga lor sa bopp lor doomu parce na mu def ba wuti appartement naa def wut appartement noonu ma ne bu déwénee ma sañ sa ba jekk ñu indi ko. te nag bàjjan ñu ñëw foofu de. am na ñoo xamante ne si maanaam bu ñuy yóbbu yàkkale yi. Mhm. dinañ def nañ war a def. Mhm. mais amaana ñoom nañu mel. cere ja du mel noonu parce que affaire tamit des fois ca cere ja lay doon. waaw léeg-léeg nga léeg sañ ca ba jekk. waaw léeg nga sañ ca ba jongo ma. waaw rafet rafet ngeen ñaaw bëre. xam ni tubaarkàlla boo <laughs> siimee cere jo ndox maa lay wuy ca taat ba. leer na kay am na ci. ah rawati doom ba day xajam. waaye wuy loolu fekk na li nga solu sañc ko yóbbu ko la nga yóbbu ca cere ja wane woo ko fa waaw rafet léegi nag la nga léegi nag la noona wane ko ca cere ja jox jox xale mu yóbbu ko sax moo tane moo tane ndax nag yàq bi ci dàq nga yàqal sa goro mu xool ko kontaan xolam sedd mu bég lekk ko ñëpp naan yàkkal leen ma dafay neex mais tey nga yàq boo xam ne tubaarkàlla boo ko yóbbu ko nga yóbbu dana lay jéppi ndax dina xam yàq bu yàq daa jéggi gan ndax ki nga war a yàkkal boo ko yàkkalu keneen koo yàkkal yàq ko ah, bien sûr damay taamu yakk yi ma yàq man yi ma tàmm ma yàq. yan nga njëkk a yàqal sama yaay. waaw loolay farata. sama yaay njëkk koo yàqal. loolay farata. ndax day doon yaay joo xam ne tubaarkàlla dalaa jur ci farata ak sella sunas Mahamed. Mm. tettal la ci yoon ba nga mën a sëy ba mën a xam mu yoonu sëy ba a yóbbu teraanga. macha boo jéggee sa yaay ba dem jox ko sa goro bu goro taxawee di la gërëm sa yaay toog di seetaan boobu yàq yàq ya ya yàqu jéggan la loolu yàq dara boobu yàq yàq bi dàq nag mooy nga njëkk a sa yaay mm-hmm. boo yàqalee sa yaay mu ñaan nga yàqali sa goro sa goro ñaan ñaari ñaan yooyu bu dajee lu baax ngay am ndax ñaanu bo yaayu borom kër hmm. ak ñaanu yaay jëla jur ñaay bu ñu dajee rek tubaarkalla ah. mën nga am lu baax man nga am lu baax ñaan yooyu mu mel ne foofu la ñuy xuusee rek waaw dugg ci sunu yaay hmm. tey bu ñu ñëwee soxna mboosee maanaam dañuy gis lu mu wax rek ne yaayam ñu gis maanaam amour bi nga xamante ne si tey doom da koy am ci yaay hmm. mais ñu gis ni soxna mboose tellement que dafa bëgg yaayam ba nga xamante ne si maanaam da koy jaral muy mu mu mu ciy wax sax ba ci tuur ay xéewal tey ñu waxtaan rek bugguma nag nga tuur xéewal wax dëgg fa waaw kay waxtaan mu dëgëral tey ñu ñëw tey ndax sama yaay naka la dundeek yaayam ba ba bii nii ci moom sama yaay moom sama yaay moom li ñu dund hmm. bu ci buñ ci duggee débat rek hmm. ah buñ ci duggee débat rek émission bi du yegg hmm. parce que fa nekk yaay ju jàmbaare yaay ju gore yaay ju gën yaay ju riis yaay ju liggéeyal ak njabootam yaay joo xam ne tubaarkàlla or dabu ko titre foncé dabu ko dara dabu ko yaay ju toog muñal ba li ko fekk tey fekk ko fi hmm. joo xam ne jaay na ay mbubbam ngir ñun hmm. yaay joo xam ne la demul màkka ngir njabootam hmm. yaay joo xam ne xëccawul ay or ngir njabootam yaay joo xam ne tey ñun lu ñu def rek sunu yaay jooju la yaay joo xam ne tubaarkàlla bi muy togg ci digg ndëndam ci aar bi ak di muy létt ndax létt kat da doon létt da jàpp sama loxo moom su da daan létt da mm-hmm. jàpp sama loxo mm-hmm. ànd ñu dem létt ji bu létt jee pare luñ ko fa fay mu jox ma ko ñëw ma jox ko sama mag ñu def ko dépasse mu doon yaay ju gore kon yaay ju ñafe la yaay ju gore bu ñu bu àndee xew programme xew buñ demee lu mu fa njëkk a lu fa njëkk a lijjanti mm. daf jox ni ma dawal yóbbu kër ga moo tax mu nekk yaay joo xam ne tubaarkàlla référence la ci lu bari fii ko sama papa mu toog du ko fi muñal ba nëga mm. di toog di sëy bàmmeel ba nëga ni mm. ndax sama papa nekk fi ma a àjjana waaye ba tey sama yaay ngi toog di ko muñal te yàlla rek tax ndax toog di ko muñal mooy passé mënta passé mm-hmm. ñun lépp lu ñu nekk mm-hmm. lépp lu ñu nekk mm-hmm. lu muy lëndëm lëndëm bu ñu jàkkaloom day leer luy leer leer bu jàkkal luy gën leer ndax ndey dina la muñal loo xam dina la sëyal loo xam ne yow mi doom foo nekk ci say morom kenn du gën mm-hmm. foo taxaw ci say nawle kenn du la gën mm-hmm. loo taxaw di ko lijjanti bu dee ay milliards danga koy am day sotti kon loolu liggéeyu ndey la te boobu ndey loolu lañu ñu defal mm-hmm. man sama yaay dama koy ñaanal yàlla ak bépp yaay nag yaay ji gën waaw yaay ji gën a gën yaay ji liggéeyal njabootam yaay ji am doon garmi nit dina taxaw gaare oto. Mhm. sañca ba rafet. Mhm. boo duggee ci biir këram fekk yaayam na mu toogee xolom du neex. doo ko naw sax. doo ko naw. Mhm. taxaw yor lu dul jeex. te sa yaay fa mu nekk. ak fa mu fekk ak la muy lekk ku ne lii lay lekk nga ni lekkul lii ku ne lii lay naan nga ni naanu lii wala sa yaay wax nga tontu ko tontu loo xam ne bu xoolee boppam bu xoolee boppam dina ni man sama doom ji taxaw tontu te bu ma ko xoolee ak bu ko moroom yi xoolee ak li ñu gis ak li ñu gis sama du benn nañu li ñuy wone ci biti ci yaay yi nañ ko dugal ca biir bu ñu nañu war a original bi. Mm-hmm. parce que léeg-léeg nga taxaw ci yaayu nit di wax ci moom nga dégg mu ni mu ni mu ni waay yow mii ah sama doom ji de wax dëgg yàlla seetaan naa ko wala wala mu ne ah sama doom ji dañoo bokk koñ waaye tubaarkàlla de. wala ñooy bokk ak yow koñ nga wax ci sa yaay loo xamante ni. dañu xam lii nga wax sa yaay amul. la ñu toog ci ñu toog ci bande tuuti di la waxtaanee. doguma la. waaw au passage maa ngi ciy siyaare waale sama yaay Faya. di ko ñaanal suñu borom guddal fanam soo gisee man laaj la mooy soxna Mbose. Mm-hmm. danoo ñëw mm-hmm. seet si la fii. dékk sa yaay sunu micro. mu wax ci yow loo xamante ne si maanaam bëri na ay yaay yoo xamante ne si gisuñu ñu koy yëkkati kàddu yooyu di ko wax ci seeni doom. tey soxna Mboose bu ñu ñëwee seet ko yaayam wax ci loolu bu ñu mënuñu ñëwaat fii ba dem ta laajuñu ko ci yaayam tey soxna Mboose lan mooy ay rêve loo xam ne war na koo defal yaayam. te maanaam amaana moom mi ngi koy mébét ci yaayam. waaw sama yaay moom li may mébét ci moom bari na li ma ci moom bari na. Mm-hmm. ma namm ci moom bari na. Mm-hmm. li bëgg ci moom bari na hmm. waaye li ma dàqal dàqal ma gënal ma fop hmm. mooy mu toog gudd fan ma di ko gis hmm. amin waay wallaay ñu ngi koy nodd macha allah loolu loolu loolu lu rëy la macha allah mu gudd fan boo la koy wér ma di ko gis rek di dem ci moom di ko tàllal sama loxo mooy ñaanal may am lu ma koy fajale soxlaam loolu laa gën a bëgg ci sama àdduna ndax nag euh, bëri na lu mu yéene lu ma koy yéene lool mais lépp loo yéene na fekk mu gën waaw surtout loolu te bu ma yoroon tey ci tubaarkàlla ay ay oto oto oto jox ko mm. te fekk na tubaarkàlla wér gi ma bëgg ci moom amu ko itam du ma am lu ma gënal kon loolu lépp nga xam ne yéene naa ko ci moom mm. ak biyee màkk jig lépp yéene naa ko ci moom mm. bu ñëwee nag dina ma neex yàlla na ñëw yàlla na gën te ñëw te ànd ak jàmm ak xéewal amiin bu ko yàlla jotalee yàlla na ñëw amiin mais lépp lu ci mën a doon yalla fekk mu moom ni ma bëgg kattan gi mu am nii tubaarkàlla yàlla yokk ko ci moom yokkal ko wéram ndax yaay ju war a gudd fan la mm-hmm. yaay am jàmm la yaay ju wër wér la yaay joo xam ne la kalla macha allah yow sama yaay dama laa bëgg barke hmm. Serigne Bamba jëmalo ma la doomu aadama wana nga ko macha allah kule asta mamar asta astanaar wéeji fal mbay penn ma xu taw sama yaay nga sama xarit la ndeysaan macha allah sama yaay la sama xarit la ndeysaan gis nañ cofeel gi tey dama damay damay dëgër tey gis nañ cofeel gi mais sama xarit la barke Serigne Touba samay doom sax dañ koo xam ci man ndeysaan dañ koo xam ba soo nee nii dañ naan bu sama sama maam nee na sama maam da nee na gisaguloo de man leen kaay même dañ may seetlu sax kaay man quoi dawal dawal dawal dawal dawal yóbbu ko gaaw su ma dikkee mun ma ah waaye mii yow li ma jox démb man quoi bàyyi rek dañoo dem ba dañoo xam man ci ci ci ci dañoo xam man ci ci moom ci loolu. maanaam maanaam moom cofeel nga am ci moom daal cofeel googu la la delloo moom daal moom daal sama xarit la. cofeel gi nga am ci moom cofeel googu la ko maay caatam nag waaw ah yaay caatam maay caatam. mais loolu tax mu demee noonu. waaye samay mag samay mag ñoom ñëpp nañ man bàyyi maag sama yaay ndax ni mu mel ci yow. ak ni nga mel ci moom. waaw moom sama xarit la moom daal sama xarit la. sa xarit la. macha allah moom soxna Mboose. mu mel ne lii lañ sàkk woon ci moom. yàlla yàlla yàlla guddal fanam. waaw ndëgërlu ba nga xamante ne si dinañ mën a yaatal ci sunu maam jooju lu baree bare mu mel ne yàlla yàlla guddal fanam ba li nga xamante ne si moom lay mébét ci moom mu doon lu gën ci moom. Mhm. ba mu ñëwee mu mën ko koo defal. sant dañu ngay sant rek yéen moom tubaarkàlla lii ngeen def ndax bisu tam xarit mhm. lii rek lañ ci soxla mhm. te bu bis bi jotatee. Hmm. yàlla nañu koy yàgg a fekkee déwén yu baree bari at yu baree bari ci barke Seydouna Mohamed. amiin nañuy jël kurus yi. Hmm. nañuy ñaan. ndax bis la bis boo xam ne tubaarkàlla bisub xare badar lu ne la. Hmm. waaw nañuy ñaan nañ ciy fàttaliku lu lu baree bari. di ñaanal ku tedd ki. ndax moom moo tax yàlla bindu ñu muy Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. di taasu ci barkeem ak ku mu ku mu ak saxabaam yëpp ñëpp. Seydina Mohamed kenn du moom. kenn du moom kenn du moom te kenn du mel ni moom. kenn du mel ni moom. jërëjëf Serigne Touba nag. jërëjëf sëriñ Touba mi ñu won yoon. ci Seydina Mohamed ba nu mën ci liñ ci mën. ci liñ ci mën dëgg mënuñu ci lépp nag waaye ñu ngi ciy jéem ci li ñu mën. ndax Serigne Bamba daf ñoo defal loo xam ne ci yoon wi. Mm-hmm. lépp lu ñu toog tey la mën ko ci ci ci ci yoon wi rek. Mm-hmm. Serigne Bamba te Serigne Bamba moomu yonent bi mooy yoonam. mooy yoonam de. yonent bi moomu tubaarkalla yàlla mi ñu moom mooy yoonam. Mhm. kon ñun sant sunu borom rek a ñu war. dëgg la sant bu baax a baax. Mm-hmm. di sant kilifa diine yëpp nag. macha allah ndax kilifa diine yëpp nag ku tedd tee ñu bind ñu muy Seydina Mohamed. kon ñu ñëpp ñoo bokk fu ñu yem. ñoo bokk waaye nag branche bu ci nekk. Mm-hmm. am na doom bu sox ko moom. waaw dëgg la de moo ñu moom ñun ñëpp moo ñu meññ ñun ñëpp. waaw moo ñu meññ ñun ñëpp. Mm-hmm. yàlla ñu ngir moom. waaye def ñoo boole nag kenn ku ci nekk kii daf koo boole ak maam Alaaji ki maam li maam laay mu jël ñu ñun boole ñu ak Serigne moom. Serigne Bamba kon kalla ñun yoon wi ñu ne. Mhm. fi ñu ne dëggal jubal leeral rek la. képp amul dëggal jubal leeral. lépp lu ñu nekk nag loo xam ne tubaarkàlla ndax kenn du ànd rek kenn du dem rek ni man nag ñëpp nee na nu man la. Mhm. waaye ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ni ñun la yal nañu yàlla boole ñoom ñoom daay man ñi nga xamante ni tubaarkàlla ñi ngi nattable suñu ñun itam. waaw yal na yàlla wëlbati leen ba ñu xam ne ñun la ñu ànd ak ñoom bokk ca la ñu ne. amiin waay ndax loolu rek moo fi nekk. amiin di jaajëfal ñëpp. waaye soxna Mbossé. Ah. balaa ngay jaajëfal ñëw ba dem te waxuñu ci sunu waaja mhm. muy muy Cheikh Mouhamadou Faral. ah Kassar sëñ Fallou Cheikh Mouhamadou Faral nga xamante ni sii maanaam amuñu sago ci moom waaye yow yaakaar naa foofu nga toll ci moom. ah waaw tey diggante soxna Mboose ak ni mu mel ci sëñ Fallou. waaw sëñ Fallou moom sëñ Fallou moom leneen la. waaw ndax li tax mu doon leneen sama yaay. Hmm. moo doon ci moom benn jëmm joo xam ne tubaarkalla sëriñ Gala Sindi nii. taw sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi koy ziare waale bu baax a baax borom Makaarimul Axlaaq tubaarkalla. tubaarkalla jëmm jooju nga xam ne buntu bu ma am tey tubaarkàlla ci Baye Karim Mbacke rek mi ngi ko jaar ci tubaarkàlla ci sëñ Galas Sindini. macha allah góoru soxna may laat. Hmm. tubaarkàlla bàyyu Karim mu ndaw. Hmm. bàyyu Serigne Saliou. Hmm. bàyyu maam Cheikh Rahim Fall. tubaarkàlla Serigne Galas Sindini ñu ngi koy ziar moom tam. di ziar ñëpp nag tubaarkàlla. waaye sama yaay. dafa nekk nit koo xam ne ci Serigne Fallou. benn jëmm la ci moom. sëñ Fallou ñi day takk juróom-ñaar sama yaay takk juróom-ñeenti sëñ Fallou. juróom-ñeenti jëllam juróom-ñeenti la. te juróom juróom-ñeenti sëñ Fallou la boo gisee mbaar ma tudd ko mbaarum sëriñ Fallou Mbacké. waaw sama yaay daf ñoo tettal ci sëriñ Fallou Mbacké ba lu mu am moom la ñu am. lu mu rogalaat ci moom loolu la ñu rogalaat. ni ni la budeel ba def rek la saaj ba di xeeñ. képp waaw. loolu yu dox ba la sama yaay dox ko ci waa kër fal lu Mbacké ci Alaaji Baara sëriñ Baara Mbacké ñëpp. Mm-hmm. ñëpp ci ñu tedd ñëpp. ba wala ngaan ci Baye Karim Mbacké mii tey la macha allah ba wala ngaan ci taawam bi nga xam ne. dani sama yaay Euh, mère Binta bay bëgg fàllu ah waaw. mère Binta bay bëgg fàllu jooju saawaan na baawaan na. law na ñëpp a ngi koy wax. tubarkalla loolu nag mooy rogalaat ba ci man mi toog ba ci ñun ñëpp samay waa kan gépp tubarkalla. sëñ fàllu li ma am ci moom bëgg sëñ fallu ba jël doom joo xam ne tubarkalla. Mhm. wuñ ko sëñ fàllu ma tudde ko sëñ fàllu man maa ko def. maanaam wuñ ko sëñ fàllu yow ma dem ma dem jënd xar dem tuur ko tuur deret tudde ko sëñ fàllu mais attention déglu leen ma soxna Mboose dafa wax loo xamante ne si faaw mu leeralal ñu ko. waaw ndax doom joo xam ne wuñ ko sëñ Fall. waaw yow nga tuddee ko sëñ Fall ma dem tuddee ko sëñ Fall. kooku juddu na bañ ko ba pare. tudd nañ ko ba pare man ma dem tuddaat ko tudd ko sëñ Fall. loolu naka nga ñu koy dem ba ci buntu jumaa sëriñ Fallu ja ma fekk fa ko mag mu baax mag mu baax. Mm-hmm. ma laaj ko ko. ni ko ah man day ku baax man ma ko lii may laaj sax nag maa ngi koy jéggalu tudd ko tuub mm. boobu maa ngi boot sëñ Fall ma ko tuddee man ko kii ma boot day dañ ko tudde woon beneen tur mu naam ko tur woon nag naqariwu ma waaye mu naam ko damaa damaa mébétoon ëmb doom bu góor tudde ko sëñ Fall mu juddu mu tudde ko beneen tur mm. man nag mu naam ko jënd naa samam xar mm. tuddu taa ko tudde naa ko sëñ Fall ndax am naa ci ndigalam deet mun ma ah xam naa ni leen de man ko amul ah, sa sëñ Fall joo jàpp ci de mooy law jàpp sa Jooj taxaw ni mooy law tuur nga sa dere moo ko sëñ Fallou Jooj de mooy law de sëñ Fallou Jooju tubaarkàlla macha allah ba nëgë mooy sëñ Fallou mooy sëñ ba nëgë ni ba nëgë ni tubaarkàlla sëñ Fallou Joojooy law te yaakaar naa ne am naa ci njottu rafet ni tubaarkàlla tur wa nu njëkk a tudd ci moom ak tur yi ma tudd ci moom lépp tubaarkàlla macha allah lépp day doon ngëneel li sëñ Fallou doon ngëneel waaw ndax yëg-yëg la te sëñ Fallou yàlla moom mooy lumière xam nga tax yàlla kese la daa liggéey suñu borom ba am li mu am Serigne Touba di waajuram liggéeyal suñu borom ba am li mu am yonent bi mi nga xam ne tubaarkàlla moom moo tax Serigne Bamba am li mu am liggéeyal suñu borom ba ba yàlla ñu ngir jëmmi Seydouna Mohamed hmm. comme Serigne Fallou Mbacké turu ñu ko tudde doon na tur woo xam ne tubaarkàlla turu mbégte lay doon turu mbégte nag nekk nit koo xam ne ci man Serigne Fallou man mënu ma wax ci moom lu bari du ma toogee ci xabrom ba sax ma ñaan damaa ko sëñ Fall daal maa ngi yaa ngi xam nga li mën li yow bëgg xam nga li ne ci xol bi defal ma ko rek Mbàkke macha allah mi ngi noonu tubaarkàlla daal <laughs> sëñ Fallu daal mu ma ci sar daal sëñ Fallu sëñ Fallu macha allah sëñ Fallu sëñ Fallu maanaam tey tey tey waa te ci waa sëñ Tuubaa yëpp nag dëgg la ñëpp nag hmm. ndax sëriñ Saliou Mbàkke dem naa toog jàkkaarloog moom borom jurul borom jàpp na la borom jowoon nga coroy xay nga muy sëriñu sama borom kër hmm, damaa dem toog nii jàkkaarloog moom maa ngi ëmb ba diis booba sunu daayira bi nekk wax euh, Bagdad mhm. su lay yoroon ko tubaarikàlla macha allah sunu sëriñ Saali moo ko tuddoon mu xidmatul xadim xidmatul xadim mu nekk ba ba ba Bagdad gii tey maa ngi ëmb ba diis mhm. sunu daayira ba ña nga toog booba lii tey jërëjëfe yàlla lii lañ sol déguisement bi lañ sol bu la balan bi barke yonent bi bu la balan bi lañ sol mhm. macha allah ñu toog ca mbaar ma la ñu dalal ñun ñëpp ma dégg ne ña ngay ma nga ña ngay ziar man ma jóg ma jog mm. booba ñu ngi jógee xel kom xel kom bu déguisement yi bu la rek lañ ma jóge fa man di raam di ñurux di dugg di ñurux ñu naan kii kan la jëw mi da ngay gaañ sa bopp mm. naka laa raam ba ñëw ba jàkkaarloog barrière yi nag mm. maa ngi ko xool ni ndeysaan ma xool ko ni ko jërëjëfi Serigne Saliou jërëjëfi Serigne mun mu ne xinnet xool ma ma ne alhamdulilahi rabbil alamin ay waay Serigne Saliou xool na ma waaye ay waay Serigne Saliou xool na ma waaye ay waay <laughs> Serigne Saliou xool na ma macha allah foofu nag xameetuma nag moom xaw ma xaw ma tuma jigéen wérul laa xamatuma lan laa doon. xamatuma góor xamatuma jigéen ak jor te foofu booy seet man nag maa fa nekk ci yéen li fa li fa dugal nit ñi li ma fa dugal sax jaaxal nañu bari. Hmm. ki taxaw noonu bëkk néeg bi di joxe xéwlu yi ndeysaan mooy joxe mooy tibb barkeelu yi di ko joxe daan ni ma nii daan ni ma am man ko sëñ Saliou laa bëgg mu joxal ma ko loxol boppam. mu daan di xin na daan di xool daan di daan di daan di muuñ man ko andi waa ji jox ma ko bi ma ko joxee ma tekki ko fi ma toog. laa ko tekki tibb suuf si. mel ni nag nekkatuma nag. jaxase la waaw. jaxase ma nag bi ma génnee ba génn nag laa soog xam ne man ndakete man ci ay biiri góor laa duggoon xuus ba dem jàkkaarloog seen. jaayante bi ma ñëwee ndakate ndakate maa ngi génn am na ay nit ñu ma topp ñëw bu fekk fi ñu toog ci daara mu leen yéen yéen a kii ànd. ñun quoi ah, mu leen waaye naka ngeen di mën a xoolee jigéen wér bu toll nii. génn ko baay mu dugg ba ci biir fii. kañ la fa dem ñu leen kii. lii mu yor ca foofu la ca sëñ Saaliw la ko jëlee man loolu ba tey sax daf maa yéem. ci sëriñ Saaliw. waaw ba tey sax daf maa yéem. kenn du moom waaye Mbàkke Balaye sax. macha allah dañuy ñaan daal ñun daal jërëjëf Serigne Touba rek. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jaaraam maam Cheikh Rahim Fall. lay sax macha allah kenn du Serigne Touba. soxna Mbossé looy wax waa Tako TV balaa ngay. yéen nag waa Tako TV moom dama leen di ñaanal. Mm-hmm. ndax li tax ma leen di ñaanal mooy da ngeen nekk géejawaay mm-hmm. di dundal géejawaay mm-hmm. di jàpp ci géejawaay di defal waa géejawaay ndax li tax mooy. Hmm. géejawaay nekk na loo xam ne tubaarkàll la banlieue la boo xam ne tubaarkàll la macha allah. Hmm. bu riche. Hmm. banlieue bu xam boppam. banlieue bi gëm li mu doon. dëgg ak man foo mën a jóge ak foo mën a nekk. géejawaay ga ma jóge foo ma dëkk falaay laay tiitaroo foofu laay ndamoo fa laa am. kenn du géejawaay. kenn ku ci ne fa nga am dëkk fa téye naw ko ndeysaan macha allah géejawaay laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee marché bu bees mhm. tubaarkàlla macha allah ba amoo siis gii ma ne nga xam ne tubaarkàlla géejawaay ko jur génnul géejawaay dama koy ndamoo dama koy tiitaroo ndax la ma jëlee marché bees indi ma amoo siis damaa gën a kontaan ci waa amoo siis ndax taalibe gi mi nga amoo siis gëm gi mi nga amoo ngor gi ak jom gi ak fulla gi ak gi mi nga amoo siis loolu laa jëlee marché bees indi ko amoo siis marché bees nekk na goo xam ne tubaarkàlla sama fierté la sama hmm. sama sama sama sama Italie la sama Europe la macha allah yàlla yàlla defal jàmm yàlla defal ñu tawféex amiin di sant bu baax di sant sama njabootu boppit nag ndeysaan la ndax sant sa njabootuk bopp mhm. weesul gi nga jur waaye njabootuk bopp ji nga jur ak ji nga jurul ak ji na la jurul yëpp sa njaboot lañ macha allah te yàlla dafa dogal tubaarkàlla man dama tubaarkàlla macha allah ñëpp samay doom lañ yaay bàjjan ñëpp samay njaboot lañ ñi may seetaan ak ñi nga xam ne tubaarkàlla ñi ngi ci man bokk ci man di ma bàyyi xel mm. maa leen di bàyyi xel maa ngi ñaanal ñëpp tey ñaanal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñëpp am jàmm macha allah tubaarkàlla sama njaboot bu ma ne sama njaboot ba bàyyu ma kenn mm-hmm. waaye nag du ñàkk nag nga tudd ci ñoo xam ne dinañ yóbbaale ñi ci des ayca tuddal bu dee saw Sow tubaarkàlla sama taaw boobu tubaarkàlla yàlla ko yàlla fal cat yàlla defal ko jàmm amiin ci barke Seydina Muhammad yóbbaale na kullu jigéen amiin ku jigéen ku ma jur maram yóbbaale na la tubaarkalla mbay saw muy sama taaw tubaarkalla macha allah yóbbaale nag képp koo xam ne ngay góor di sama mm-hmm. doom mm-hmm. yóbbaale na la tubaarkalla sëñ Fallou rakam seeda yàlla sëñ Fallou rakam tubaarkàlla moom bu ànd ak moom rek dana bàyyi waale ñëpp ñu dem. Hmm. di nag euh, gërëm nag sama mbaarum sëñ Fallou bi ñi nga xam hmm. dañuy fréquenté fii nag. mais mbaar mi nag ci yaay booy gis naa ci ne si faaw nga solal ma ci de. da nga sol da nga ciy sol da nga ciy sol ci kattan bu neexee yàlla. ci kattan yàlla ak mbaaxam da nga ciy sol bu neexee yàlla yonent bi hmm. bis boo ci waree def diiwaan rek wax ma ma lijjanti la ci tubaarkàlla nga sol bu neexee yàlla. fii dafa am mbaar ne tubaarkàlla seen mbaar la spécial. premièrement xalifa mi ngi tudda Khalifa Babacar si Khalifa Malick hmm. dañ koy ñaaral moom tamit mi ngi ci mbaar mi Maguette Mayga rakkat Momadou Lamine Mayga tubarkalla mooy woy na woy wu rëy dina génn moom Maguette buuba baara baara séeri aji xale yi tubaarkalla macha allah ñaari baara lanu ñaari lamin baara lanu ndeysaan baara au carré waaw ñaari lamin ay ba ay seex laa yor waaw ñu nekk ay nit ñu baax nag yow yaa njaboote mu ngi noonu Amadou ñoom mm. ñëpp daal tubaarkalla fii ngay gis nii am nañu fréquenté ñoo xamante ni boo làqati ko nii tubaarkalla mm, cantine bi fi la ñu fi la ñuy toog fi la ñuy añi fi la ñuy defee lépp ñoom ñëpp bàyyuma kenn mm. képp ko ci tudd kenn rek bàyyiwoo kenn ñëpp ngay limaale tubaarkalla kon yàlla yàlla defal leen jàmm amiin buuba nag doon koo xam ne moom kooku moom bàjjenu moom moom dafa jël bàjjenu man maay yaay sama bàjj mais man maay sa ménagère. maay sa ménagère. fii lay gaaree otoom. Mhm. sama oto ne nii ma war a dem mu jël otoom mu ni mbay saw bàyyil mooy jël sama oto. jël otoom yóbbu ma fu ma bëgg a ñëw toog. da ngaa baax Lamine lay def ak man. tubaar kàlla damay gaare sa oto njur oto ñoom ñëpp yóbbu fii nag am na fi maire bu ma bu baax sama maire maire Saara bàjjen ñoom Lamine la mhm. sama yaay la sama xarit la ndeysaan kooku tubaarkalla dama koy ñaanal yàlla suma ma ko tuddee fii amoo si kenn lu tax sama yaay la sama xarit la ñëpp baax ku baax xam ñu baax yàlla na yàlla defal jàmm tubaarkalla amiin bàjjan ñu ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax mu mel ne kon loolu lañ leen indiloon ci li nga xamante ne si mooy maanaam bisu tamxarit bi mu mel ne bàjjan Mbossé moom dañ koy jaajëfal bu baax a baax tey lañ ko woo maanaam mu jàppandal ñu mbir yi ba mu jàpp te maanaam of tam moo tax mu demee nii parce que mënoon na yëg boppam ñu woo ko mu ne damaa jàpp te yàlla xam na ne du jàpp bëri nañu ko ciy def moom nag boo gisee ñu estimé ko dafa doon koo xamante ne si yaay fàll la bëgg sëñ fàllu doon nit ku baax mu mel ne chaque jour li muy wax mooy géejawaay laa gëm géejawaay laa am su ma ko déggee mook sama waaji alaaji Cheikh Diop Mbaye maa ngi koy ziare bu baax a baax di ko jox wàccu waayam sama mbokk taalibe la soxna Mbose ku baax bëggal ma boppam mhm. moom it loo wax mu ne la géejawaay sëñ fàllu géejawaay waaye moom ñoom yàlla moo leen di fay parce que egg nañ foo xamante ne si mënoon nañoo yóbbu seen bopp feneen mais lu ñu am rek tey dañ naan géejawaay kon ñen leen ñi li nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg suñu borom defaral leen ko te mu doon lu gën si ñoom mu rawati soxna Mboose mii nga xamante ne si ci OFT bañ xamee yàggul waaye saa yu woowee rek na ko soxna Mboose lii laa bëgg danaa ma sëñ Fallou sama doom nga yombalal ma ko wax dëgg fa mm. kon ñu ko koy jaajëfal bu baax a baax baax di ko kontaanee di ñaanal suñu borom guddal fanam diwaat sama goro allah am na solo kon mi ngi bëggee ñëpp rek di nuyu ñëpp mu mel ne loolu lañ indiloon ci li nga xamante si mooy bisu tamxarit bi bis bi nag mm. maanaam guddi tamxarit doon na guddi goo xam ne guddi gu doy waar la bis bi tamit yu bari xew na ci maanaam ñi nga xamante ne si maanaam tey ñoo doonoon maanaam ay waay xare bëri na ñoo xamante ne si suñu boroom ci lañ leen teggi lu bari ki ci mel ne Seyna alin mhm. maanaam bisu tay bii nii ci lañ ñàkkee woon bakkanam mu mel ne bis yi doon war war na di fàttaliku tey rek def nañ ci benn direct ci biir Tacko TV Oustaz Mifta ak euh, Omar Saliou mu Almuntaxa tey waxtaan nañ ci waxtaan bu am solo mu mel ne yooyu dafa baax ñu koy fàttaliku bu baax a baax a baax a baax mu mel ne kon noonu la ñuy tàggatoog yéen di leen jox dig daje ci émission diwaanu Baye Fall mu ngi ñëw vendredi incha allah rabin ñu waajal ko bu baax a baax a baax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér